dal leen ak jàmm ñu dikk ak yéen bi mu jaar yoon amee ci anam bu mucc nañuy séddale lu tolloog fanweer ak juróom ci ay tonne phosphate noonu ko journal bi daal xam ne li ñu bëgg daal mooy campagne agricole deux mille vingt quatre deux mille vingt cinq mu doon campagne bu mucc ayib boo xamante ni amul benn jafe-jafe boo xamante ni dinañ ko ci mën nemmeeku Vox Populi nañu enjeu de pouvoir derrière la frénésie de réorganisation des états-majors politiques lu jëm ci wàllum législative explosive second tour de la présidentielle noonu la ko journal bi di Vox Populi daal di xamle parti politique yi ñu ngay gën a defaruwaat di gën a booloowaat ngir nag fexe nu ñuy demee ci élection législative yi ñu dëgmal waaye fexewaat bu njoganteem njiitu réew bu amee ci biir réewum bu dee am parti bu nekk bëgg na ca bokk Vox Populi dikkaat na ci mbir moom la waaye tamit dikkaat ca mbëbës mu ne c'est une bombe écologique c'est une situation qui ne peut continuer na xam te noonee lañ fay jale mbalit ma lu ni mel dana indi ay jafe-jafe ci wàllum alam gi waaye itamit warul mën a wéy di nekkee noonu ba léegi journal bi ne daal faaw ay dogal daal ci am le point yéenikaay ñëw nañu réaction de Mamadou Diaye te ancien conservateur la propriété et mu ne nag moom ci wàllum foncier de Ngor Almadi ak ñi nga xam te ñoom ñoo nekkoon ay enseignants ci cour nekk foofee ci ENA mu ne la réglementation foncière et domaniale est encore entièrement adaptée ndax ni nga xam te ni noonu la ñu fas yéene réglementer lu jëm ci wàllum suuf si ci biir réewum Sénégal ndax jaar na yoon ba léegam déet mu samp laaj ci biir le point yéen i kaay lii quotidien di kat ci décharge de mbëbës boobule mu ne un gouffre à milliards la nga xam te ni moom moo fa nekk li toll ak ñaari téeméer ak juróom benn ci ay milliards de francs CFA Promojet moom moo fa dal nax say Moussa Balla foofa na nag mu ne douze pour cent ci montant bi moom rek la ñu utiliser di koppar dañ ko yëkkati woon ngir defaraat bërëb boobule lii quotidien dikkaat nañ 24 heures yéeni kaay mu ne lu jëm ci wàllu mbëbës moomee daal mënatuñu wéy ba léegi di bàyyi gone yi ñu fay toltulaanu di fa taxawaalu ndax nag jafe-jafe yamu leen mën a jural journal bi dikkaat ci waaye itam Bassirou Diomaye Diakhar Faye njiitu réew mi la mu bëgg jamono jile mooy lu jëm ci diggante jokkalante bi ci réewum Sénégal ak réew bu Gana mu ne nag ñu defaraat ko bu baax a baax ba mu gën a dëgër na foofee amalu ngan ca réew bu Gana ca Accra la ko bi di 24 heures froid pour mieux semer diggante njiital Pastef Ousmane Sonko ak njiital France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon ba gannaaw ba nga xamante ni amal na gan ci réew Sénégal journal bii di 24 heures nañu nag daanaka dañuy nooyal léeg-léeg ñu dëgëral la ñu bëgg nag mooy eh, ñaari langue yooyu wëy di bëggante ba léegi bés bi yéene kaay nañu nag dossier IFAN ñu ne au delà des querelles fondamentales laboratoire boobu carbone 14 mu ne foofee nekk na lieu d'exil de gloire pour Cheikh Anta Diop naka la fa doon liggéeyee naka la ko sosee waaye itamit lan la nekkoon ci moom journal bi yéen i kaay xëy dikkaat indi jàngat bu yaato yaato ci ki nga xam te ni moo fi nekkoon scientifique boobee di Cheikh Anta Diop ak boobu reeb laboratoire naka la ko taxawale woon waaye tamit liggéey ba fa daan nan la demee woon enquête quotidien dikk di ñu xamal nag lu jëm ci wàll sos parti politique bu bees waaye tamit jafe-jafe yi am ci biir APR kii di Amadou Ba fas yéene nag jàkkaarloo ak ëllëgëm waaye tamit dal di jël ay dogal ay matuwaay yu xees yoo xam te ni dana ko xamle ci biir réewum Sénégal gannaaw ba mu jógee ca tukki ba nga xam te ni defoon na ko dana janook way taskatu xibaare jano janook ay militant am janook askanu Sénégal ngir xamal leen fan la nar a jëm ci wàllum politique les échos yéenikaay dikkaat ci li nga xam te moom mooy coow li ñeel Lac de di mbërum làmb bi mu ne nag Lac de Guiers prison daal dinañ ko ca bi daal xam de ñi nga xam te ñoom ñoo koy topp nag la ñu koy laaj ci koppar toll na ci juróom fukki million ci suñuy koppar ndax nag moom Lac de Guiers bi nee na daal ay nit la jëloon ni daf leen a ñoom ñu doon ko topp doon ko laaj mu delloo leen seeni koppar te koppar yooyu bëri lool toll ci juróom fukki million Walf Quotidien nañu attaque contre Macron tapis rouge pour Mélenchon tournée annoncée chez les putschistes Sonko tel quel ki nga xam te moom moo di Ousmane Sonko daal daanaka woy fupp la ndax nag daal dinay song kii di Emmanuel Macron dal di dalal kii di Jean-Luc Mélenchon di ku jekk ki nga xam te moo di Macron fii ci mu Sénégal waaye tamit fas yéene dem seeti ci biir Afrique ñoo xam te dañu foqati ay nguur Ousmane Sonko mooy kan journal bi ji di Walf Quotidien moo samp boobu lépp laaj di xamle rek ni kon daal moom mu ngay doxalee ni nga xam te ni noonee la ñu koo xamee le Dakar waa dikkaat ci li nga xam te ni moom moo nekk criminalisation de l'homosexualité Bokum et Diakhaté déterre les vieux prêches de Sonko ki nga xam te ni moom moo di Ousmane sonk la mu fi daan wax lu ci lu jëm ci wàllum ngóor jigéen kii di Thierno Bokum ak Moustapha Diakhaté nag su lin lañ Ousmane Sonko kàddu yi nga xam te daan na ko yëkkati te ñoom nag li ñu jàpp mooy yi kàddu yi mu mujjee yëkkati ci mbir moomu lee xaw na waraloo lool ak la nga xam te ni daan na ko ci wax waaye itam ci biir journal bii di la Dakar waa ba léegi tamit lu ñeel pèlerinage marial de Popenguine cinq cent millions de francs CFA moom la dugal ci google pèlerinage marial de Popenguine nag ngir lu jëm ci wàllum courant bi mu doy sëkk ba duñ ci am benn jafe-jafe l'évidence quotidienne ñu Alizé SA Sandiara mu ne benn projet bu quatre mille emplois moom nag dañ ko war a sauver jabodo ji leen ngir bañ mu nax saay l'observateur yéeni kaay dikkaat ci li nga xam ci moo nekk génn ko ilimaani jorin ji Ousmane Sonko njiital Pastef ci ñeel lu wàllu borom ñaari zéro ki nga xam te moo di Ousmane ci lépp lu jëm l' de saisie de drogue à Kër Ayib mu ne nag l'autrice intercepte encore deux virgule huit kilogrammes de cocaïne la drogue découverte dans une valise à double fond était cachée dans l' de Sylvain Bathia Para nekk foofee ca diwaanu Ngor gannaaw nag ba nga xamante ni l' yi déglu nañu ko moom Sylvain Bathia Para Mendy daañ delluwaat ci génn na kër goo xamante ni moom moo ko moom ngir xool nag la nga xamante ni am na foofe ci la ñu daal di gisee tamit lii di drogue bi daal dina fay des waaye journal bi tamit dikkaat na ci ana lan moo tax ñu daal di jàpp kon kii di Abdoulaye Seck ci mbir moomule di doom ci Idrissa Seck journal bi xamal nañu ko libération yéenikaay dikkaat na ci coowal Lac de Guiers gi mu ne escroquerie au visa sale temps pour Lac de Guiers mbër mi defeere nañ ko yóbbu nañ ko foofee ca rëbës la ñu koy toppe nag moom mooy escroquerie maanaam dafa nax ay nit daal di jël seeni koppar lim ba toll ci juróom fukki million yu leen waroon a remboursé waaye nag ki nga xam te moom moo di mbër mi deful lu ni mel ndax daf leen diggoon ak tukki wutal leen visa te loolee mujjul anto le public de Diomaye mu bi nga xam te nii moom moo di pastef bëri ci ay nit ñoo xam te dañu mer bu futu jamono ji leen nag ndax kenn tabbu campagne agricole 2024 l'état met les pieds à l'étrier la ko journal bi di l'info quotidien daal di xam ne le verdict yéenikaay nañu le groupe GFM l'ébola de la galaxie politique ñi nga xam te ni ñoom ñooy waa groupe :fra Futurs nga xam te et yéenikaay nañu Mélenchon en visite à Dakar mu ne remercié par son de son soutien constant ni nga xam te noonu la yàgg di jàppal tànk parti Pastef bi Ousmane Sonko di nay gërëm kii di Jean-Luc Mélenchon ci mbir moom leen daal di ko cay tatagal dalal ko ci Ndakaaru Dakar Time nañu Sonko reçoit Mélenchon partisan de la dépénalisation de l'homosexualité mu ne le projet Vire au Gay Pride maanaam li nga xam te ni moom moo nekk projet Pastef daal boo moytuwul ci wàllum ngóor jigéen la nar a mujj Dakar ko wax mu ne nag ndax kii di Jean-Luc moom bëgg-bëggam mooy lii jëm ci wàllum góor jigéen ñu daal di koy dépénaliser noonu la ko Dakar Times daal di xamle le peuple quotidien ne ko nag lu jëm ci wàllum retour du docteur Cheikh Oumar Anne ca dëkk boobee ca Ndioum ñu ne nag waa Ndioum de ñoom ñëpp génn nañ ngir daal di dalal kii di Thierno askan wi yëpp ñoo génn teextu ko noonu la ko journal bi xamle l'éveil quotidien nañu moom Cheikh Oumar Anne moomee de daanaka Ndioum moom foo sànni mbatt mu tag ndax nag kenn desul ci biir kër yi ñëpp génn ci mbedd mi ngir daal di teertu kii di Cheikh Oumar Anne foofee ca Ndioum noonu ko journal bi daal di xam ne vingt-quatre heures yéeni kaay nañu ce que Sonko reproche à Macron li nga xam te moom la ilimaani jëwriñ Ousmane Sonko di reproché Emmanuel Macron njiital France daal mooy lu jëm ci wàllum gundu ak fitna gi njiitu réew ba donte ak askanu Sénégal moom mu ànd ci akuk patt loolee moom Ousmane Sonko nee na daal rafetlu ko noonu ko xam ne ci biir journal bii di vingt quatre mu ne université Cheikh Anta Diop boobu Ndakaaru daal dinay dalal ñi xam xamante ni ñoom ñoo di gan yooyu la waaye itam ci kanamu étudiants yi Mélenchon prêche pour l'homosexualité kii di Jean-Luc Mélenchon waxtaan na ci lu jëm ci wàllum ngóor jigéen waaye kii di Ilimani Diorine Ousmane Sonko li ñu ne nag foofee nga xam te ne nii moom moo université Cheikh Anta Diop bom Dakar Sonko envoie des rafales à Macron maanaam ay ball dóor ci kaw ki nga xam te moom moo di njiital France di Emmanuel Macron noonu la ko journal bi di réew mi quotidien gan ak janoo ba nga xamante ni Ousmane Sonko amal na ko démb ak étudiant yi ci kanamu kii nga xam te moo di Jean-Luc Mélenchon mu ne le souverainisme en marche maanaam moomaat sa bopp gëm sa bopp bu ne day loolee mu ngi doxaat ndax ñi nga xam te ñoo di kilifa yu yees yi rawatina kii di Ousmane Sonko mu ngi koy jëmmal l'informateur quotidien ñu conférence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar l'apologie de l'homosexualité maanaam fexewaat ba lépp lu jëm ci wàllum ngóor jigéen gën a dekkiwaat daanaka daal loolee bokk na ci la xam te ni moo nekkoon tànk Jean-Luc Mélenchon fii ci biir réewum Sénégal yooyu lay xaddu moom bokkul ci li nga xam te ni moom la daal di wax mu ne day Sonko se démarque de manière moins ferme que Macky Sall maanaam na nga xam te noonu la Ousmane Sonko daal di waxee ak nag ka nekkoon jiitu réew Macky Sall waxe woon daal xaw na wuute lool ki nga xam te moo nekkoon jiitu réew boo wax ni ngóor jigéen kenn du ko dagalal ci biir réewum Sénégal journal bi di l'informateur quotidien moom moo ko daal di xam ne en relief ci wàllum mbéy mi ñu gën ko yeesalaat jaarale ko ci biir xarale yi loole nag bokk na ci projet bi nga xam moom la ñu daal di waxtaane ci biir en relief quotidien le point nañu nag administrateur de Bambay TV et influenceur de renom dans le Bawol Modou Ndiaye un des grands artisans de la victoire de Diomaye kan moo di Modou Ndiaye mi nga xam te ni moom moom Bambay TV waaye itamit xarañ lool ci lu jëm ci wàllum tas xibaar ak ni nga xamante ni noonu la doon doxale bokk na ci ñi nga xamante ni nag ñoo jàppal tànk Bassirou Diomaye ba mu yëg si waate ci bopp nguur gi noonu la ko le point ne na ci jaar-jaaram le regard yéeni kaay nañu nag ngan gi nga xam te ni Jean-Luc Mélenchon amal na ko ci biir Ndakaaru foofe ca UCAD 2 ñu ne nag UCAD de havre des pics et vérité foofee nag dëgg jib na fa waaye itamit am na ñoo xamante yuuxu nañu leen fa ñàññi nañu leen fa noonee la ko journal bi xam ne lii quotidien dañu lu jëm ci wàllum ngóor jigéen ci biir réewum Sénégal Macky Sall la mu xamle woon mooy moom ci ak nguuram daal kenn du ko fi dépénaliser waaye kii di Ousmane Sonko la mu wax moom danañu wëyal di nga xam te ni moom moo nekk boobu lépp débat daal di ko gérer ci biir réewum Sénégal tribune yéeni yi nee ñu nag lu jëm ci wàllum polygamie LGBTQ Sonko rassure Mélenchon ki nga xam te moo ni la mu ne daal mooy li jëm ci wàllum góor jigéen daal toléré nañ ko ci biir réewum Sénégal noonee la ko tribune yéeni kaay daal di xamle waaye tamit dikkaat na ci lu jëm ci wàllum dundu gu cher gi ci biir réewum Sénégal mu ne la nécessité d'éviter les erreurs de Macky Sall nguur gi fi nekk daal nañu fexe jafe-jafe yi nga xamante ni nguurug Macky amoon na ko nguur gi moytandiko noonee la ko journal bi di tribune yéeni kaay daal di xam ne bés bi yéeni kaay nañu nag divergence radicale entre Sonko et Mélenchon sur des sujets de société mu ne nag lu jëm ci wàllum borom ñaari tur yi daal ñi nga xam te ni ñoom ñoo di Ousmane Sonko ak Jean-Luc Mélenchon bokkuñu ci gis-gis gis-gis yu wararoo lañu yu waraloo lañu ci am le public yéeni kaay le gage de Sonko à son peuple ci lu jëm nag ci li nga xam te ni moom moo di développement inclusif waaye tamit un Sénégal prospère pour une Afrique en progrès kii di Ousmane Sonko mu ngay dalal xelu waa askanam di dalal xelu Sénégal noonu la ko journal bi daal di xam ne libération yéeni kaay dikkaat ci jëm ci wàllum association de malfaiteurs trafic international de drogue blanchiment de capitaux mu ne lépp ci li nga xam te nag octrice di kër gi nga xam te mooy xeex lu jëm ci wàllum sinébar ji bi réewum Sénégal ne nag ñoom daanaka defati nañ seen mëninte ñoo xamante ni benn pa réseau dañuy jaay drogue moom la ñu jàpp ci biir Ndakaaru gannaaw nag ay weer ba nga xam te ñu ngi leen di topp diggante kër ay yëpp mbuur waaye itam fii ci Ndakaaru leen jàppe ñu yoroon nag lim bu takku ci wàllum drogue noonee bi daal di xamle l'observateur yéenikaay dikkaat nag ci li nga xam te moom moo nekk nomination yi am ci conseil des ministres bi am niki àllarba ji ñu génn mu ne leen nomination et la prime à l'engagement à la constance et la mort actée de Yewwi li nga xam te moom moo di Yewwi askan wi daal l'observateur yéenikaay ne boo moytuwul dana deede ndax ñi xam te ñoom la ñu tabaat jamono jilee ci yees ñu ci bëri daanaka nag ci parti bi di Pastef la ñu bokk daal di wuñuy dem daal fa nga xam te moo di ci coalition Yewwi askan wi ngir tibb fa boo moytuwul kon Yewwi askan wi daal ci faatu la jëm noonu la ko journal bi di l'observateur yéenikaay daal di xamle dikkaat na itamit ci ngan gi nga xam te ni amoon na démb ci réewum Sénégal ki du Jean-Luc Mélenchon janoo woon ak Ousmane Sonko ak étudiants yi foofee ca daara ju kawe université Cheikh Anta Diop bu Dakar mu ne Sonko et Mélenchon ñoom waxtaan nañ nag ci lu ñeel borom ñaari tur yi la ko journal bi daal di Sonko veut nouvelle France Afrique ci wàllum diplomatie Walfu Quotidien moo xëy titre loole kii di Ousmane Sonko daal lu jëm ci jokkalante bi ci diggante réewum France ak Afrique daal dafa bëgg mu yeesaat ñu xoolaat doxalin ga fexewaat ba lépp jaaraat yoon noonee la ko a fës ci yéenekaay ñu da leen ko dëgtal